fallu mam daam say gëddu feende say booli laay taaj day root fallu tey moom kenn xàmmewul weer bu dee ak weer bu sori ndax sëñ fallu mu waaye tey moom kenn xàmmee weeru dee ak weeru sori murid yi moom weer bu dee weeru sori moom la ñu yemale bu sëñ Fallou ayee moom dañuy ku taxaw rek kon dañuy ñaan lépp lu luñ fi ñaan yàlla na ko nangu ci barke Seydina Muhammad yàlla nañ ko yàgg di fekkee ci barke yaa Rasulullaay macha allah ñaan gi ñaan nañ ziyaare nañ macha allah daal wax dëgg yàlla di ñaan ay ati at ñu fekkee ko lépp lu fi waaye ñaan rek yàlla na ko yàlla nangu ci barke sëñ Fallou Mbaye. barke sëñ Fallou barke sëñ Fallou barke sëñ Fallou barke ñu ngi sant ñëpp. ñu ku fi indi tawat yàlla na ko yàlla saafara yàlla ajo aajo yëpp faju si bàkki sëñ Bamba yàlla na yàlla dolli sutura dolli ko képp kuy murid di taalibe sëñ Bamba ak taalibe sëñ Fallu yàlla faj aajo yëpp war wax dëgg yàlla màggal gi neex na lépp man na waaye sëñ Fallu rek la nag sëñ Fallu kese jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf di leen ziar waaw di wax ne màggal gi moom neex na macha allah man ne donte taalibe seex laa sax waaye sëñ Fallu Mbàkke moo tax ma ñëw yaa ma gën a xam ñun daal kontaan nañ trop ci màggal bi macha allah yàlla na yàlla nangu ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf man Jurbel laa jóge Jurbel waa ah maa ngi doog a màggal si waaw maa ngi doog soxna laa tudd. ah kontaan nañ moom vraiment wax dëgg fa yàlla kontaan nañ màggal bi neex na macha allah daal neex na ah maa ngi leen di wax ñu topp ndigal bi rek topp ndigal bi macha allah dañ fàll moom. ku ci dugg ma wax dëgg fa yàlla doo ko réccu kontaan nañ daal ñu leen di sant di leen gërëm. Ah, aujourd'hui grâce à Cheikh Ahmadou Bamba on est ici à à à à Barabou Seigne Fallou vraiment nous tous on est très contents on a fait une fierté de venir ici à Touba grâce à Cheikh Ahmadou ndax diggante sëñ fàllu ak yàlla dara doxu ci muy Fallou bi yàlla ñuy ñaan ci yàlla gën a tibeeg sëñ Touba di fekk bisam yi at yu ne. te luñ ci fekk yal nañ ci man dara waaw lépp lu luñ fi ñaan ak mboole mu jullit lu fi jullit ñaan rek yal na ko ci yàlla defal xéewal yi ko we njortam liñ yéene ci yoonu borom Touba wi yéene ko ci njabootam gii yéene ko sëñ Fall Mbàkke yal nañu ko yàlla defal defal ko bépp jullit ak bépp murit ci barke borom Touba ñu fekke ko tal ko am nuñ ci def saa bu nuy ñëw Touba lu luy mbégtam sëriñ Touba yal nañ ko man di ko def ci ànd ko wér di ko liggéey sëñ bi nangul na ko sëñ Fallou Mbacké amul nu fayam jërëjëfe Serigne Fallou jërëjëfe Serigne Fallou jërëjëfe sëñ Fallou. ñuy siyaare ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte ak kontaante ci micro bii nga xamante ni moom nga ma jox di sant yàlla suñu borom bu baax di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi lool ànd ak wér ba lépp loo xamante ni yéene na koo liggéeyal Serigne mu ànd ko ak taalibe yëpp Mbacké mu eggale ko nam ko soobee di sant yàlla suñu borom bu baax. ci ñëw gi ma ñëw ci màggalu Serigne Fallou Mbacke gii ndax màggal gi kat boo gisee sama jëwriñ dama koo jaayante rek ndax yàlla xam na ko sax ama naa ay xat-xat aman naa ngant lool waaye bëgguma bëgg Serigne Fallou Mbacke tax na ba damaa bàyyi sama lépp ni sëñ Fallou ndax kat Touba kër jëwriñ fa laa jóge ci ndigalul Serigne Bassirou Mbacke moom laa ñëwee fii ndax ndigal rek lañ am ndax bu ñu amul woon ndigal yàlla xam ne ko fii du ma fi dikk sama borom kër waññi ko tudd sëñ Fallou ma ñaan si sëñ Fallou am sëñ Fallou fii sëñ sëñ Fallou ñëw ba ci barabam bi jàpp ba sell jàkkaarloog moom sëñ Fallou ne ko sëñ Fallou borom kër bu tudd sëñ Fallou laa bëgg sëñ Fallou may ma ko dellu mayaat ma doom ji tudd sëñ Fallou kon man sëñ Fallou am naa ci firnde kon boo gisee ma jaayante ñëw fii tey ci bisu sëriñ Fallou Mbacke bii kon am na lu ma yëkki sëñ Fallou am na lu ma sëñ Fallou Mbacke defal ni àdduna waaye sëñ Abdou Karim Mbacke borom jikko ju set ju sell ja moo ma defar ba ma sell ma ñëw fii mu tarbiwu ma may liggéey sëriñ Touba ca Touba kër jëw li ma yor fa dayrab Touba kanam dayra jaalibatul maraaxib dayru xit dayra sëñ Fallu dayra maam jaara bu sa ñetti dayra yëpp mi ngi sama ma ànd kook sama soxna yu baax yi soxna Salabé yi soxna Fatou Fall ak soxna Daba ñun ñëpp ñu ànd ko di ko liggéey. di santaat bu wér a wér nag si màggalug sëñ Fallu gi xam ne lépp luñ mënti am si àdduna rek sëñ Fallu moo ñu ko gënal sëñ Fallu lañ yaakaar ñun ay ndaw yi sëñ Fallu lañ sëñ Fallu nag lim def si ñun mënuñoo toog fii di ko wax waaye santaat nañ bu wér sant nag weesul nga doon ab murit rek ak sant la luñ mënti am sëñ Fallou moo ñu ko gënal suñ naree toog fii nag di wax si sëñ Fallou duñ fi jógee waaye ñu ngi santaat bu wér a wér di ñaanal sama sëriñ sañ Abdoul Hadim Mbacke yàlla na ko suñ borom bàyyi mu gën a gudd fan ak wér ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ñaanal sëñ Cheikh Saliou Mbacke mu ànd ak tawféex ak taysiir ñu ngi ñaan bu wér a wér nag màggalu ko ren gi yàlla nañ ko teewaat ay déwén si ba sëñ Fallou ah, bis bi tey ci la mooy anniversaire ndax ci la laylatul isra wal amee woon ci la subhaanahu wa taala yàlla ci la invité woon yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu fekk si ko ci kaw asamaan si ci asamaanu juróom-ñaar bi mu ñëwee mbokk yi ci la ko joxe julli juróom muy anniversaire kon julli nga xam ne kon bu ñu xoolee mbokk yi yeneen ibaadaat yëpp yàlla mi ngi ko farataale ci suuf waaye julli nag la woo sang bu tàdd bi alayhi salaatu wasalaam ba ci kaw asamaan mu jox ko ko farataale ko ko ci kaw. boo tuddee sëñ Fallou rek xel yëpp dem ci moom. waaw bañ nañ ko ba loo bari loo am amub sëriñ booy ñaan rek da ngay def juróom-ñaari sëñ Fallou kon xam ne sëñ Fallou bisam bii ak lu dul bisam bii kenn du ko ci sëñ Fall moo jiitu ci xol yi moo mujj ci xol yi moo dëkk ci xol yi waaw ñuy ñaan yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba sëñ Touba yal na nu fayal sëñ Fall xanaa lépp xanaa dem nag ba nga xamante ne toll naa ci njàqare lool ba nga xam ne sama jëmb ji yaakaaroon naa ne dana jóg àddina mu feeñu ma bàllaay sa borom baax ba ba ma jógee.